Omar waaw su muy mhm. noonu saa li mu wax euh, ci Cheikh Bara waaw noonu la rek Cheikh Bara mënuma sori ci moom pour plusieurs raisons. waaw parce que am loo xam ne bu ma ko waxee ci moom émission bi du egg man da xam Cheikh Bara boo ko téye. Mhm. téye nga ay centaines de personne Cheikh Bara ni mu doon jox dépasse ci réew mi fii ñu mu doon faj. ji mhm. leen yoral seen lu bari ci réew mi fii. loolu la Cheikh Bara kenn waru ko téye dama lay wax li may wax ne dama ci xam dara mosuma ko ñaan man du ma ñaan mais dama gis ay nit yu muy dimbali Cheikh Bara boo ko téye di nga téye ñu bari ñoo xam ne dépasse bi ñu togg seen kër Cheikh Bara jëlee am ñoo dañ doon faju Cheikh Bara am ñoo xam dañuy jaaxle borom sëy am problème danga daan dugg këram ay nit yu am problème rek ñoo fay nekk waaw loolu après dinañ ci dégg parce que xam naa lu bari Thiabar waruñu ko téye waaw léegi nag euh, comme li saa wax euh, avec recul bi ñu def depuis jeudi passé day tax ñu mën a def bilan mën a analyser réew mi lan moo fi xew plusieurs raisons comme sànq ni ma ko waxee li ngay njëkk a naxarlu mooy ñu ñàkk seen bakkan hmm. waaw parce que foofu moom mooy egg na ci niveau boo xam ne xam ne kii gaañu wala ki ñu téye ku mu ci mën a doon xam ne kooku mënoo di ko jooyal jooyal foo xam ne ay nit ñàkk nañ fa seen bakkan loolu tax dañ koy indi ci niveau boobu léegi li ma ci metti comme li saa wax muy au début ñun yàgg nañ artu taxaw yàgg nañ artu korog bi may mujjee wax fii rek li ma wax mooy jël leen ko nee leen ko coppet jël yóbbu man leen parce que te ñiy wax loolu ñun gën ñu leen xam réew mi te gëm naa ni sax ñoo ñu ko gën a xam mais seen bakkan rek lan doon waxee. Mm-hmm. mais aussi di jëñax nit diw diw jóge fee man maay borom ndakaaru maanaam lu ne ñu dugg ci man bi ma gën a tiital mooy bi taxawee ci dialogue national bi dialogue bi dafa daanu rek ki ma dendal man ko man dama tiit pour suba mun ma lu tax man ko dialogue bi ni ñu ci waxee baaxul kàddu yi ma fi dégg gëmal dóor xippil dóor jëlal armée bi jëlal ceci ou président di daaneel kàddoom da may ñaan njëkk ma jàngat benn kàddu mooy loo xam ne suñ borom da ko bañ ba nit ku ko def loo kaayoo kaay dalay lay wàccee mm-hmm. te dina la wan ni doo dara mooy nit ku beew mm-hmm. ma sentir ay nit yu beew te seen beewte yëpp Sénégal jëm li ñuy tiitaroo Sénégal moo ko def ñooñu taxaw pare pour duma sénégalais ngay sentir ci seen kàddu benn tëkku te yooyu yëpp suñu borom da ko mooy di tëkku nit nit ku beew yëpp nga sentir ko ñu ñëw ba ci bisu jeudi bi lii xew-xew ñu ne ay bakkan rod nañ ci lu ne mën a xew te li ci metti mooy doo dégg ku wax kàddu dal daf ci am foo xam ne bu fa situation tolloo ay force reste à la loi état de droit dinañ leen jàpp dinañ leen tëj dina leen duma mais ban dalee jàpp ak di tëj ak léegi lan la jur kon solution bi nekkul woon jàpp nekkul woon tëj nekkul woon yóbbu ci yoon mais aussi nekkul woon di yëkkati yenn kàddu yi diis yi man dama jàpp ni yenn kàddu yi boo demee ba di ko yëkkati sa noppi moo ko gën parce que plus que yaa ngi wax plus que yaa ngi gën a xam taal bi kon noppi woon ci moment boobu moo gën mais da ngay dégg ay kàddu yoo xam ne jóge ci kilifa kilifa yoo xam ne tey jii ñun da leen dénk suñu bopp mu neex leen mu naqadi leen ñu ànd ak ñoom ak ñu ñàkk ànd ak ñoom ñun dal leen denk suñu bopp parce que ñun ñoo leen fal ci nguur ñu ay ndomba tànk jox leen ko ci suñu tur kon ñooñu ñun bi ñuy deele ak di gaañu di ñàkk tamit suñuy nit li ñu soxla mooy ki ñu defal mais da ngay sant ci kàddu yi ñi gën a xam teg ci ñu indi ay explication boo xam ne li naan nit ki booy lijjanti li ci ëpp yaa ngay gën a la jël mais da koy sentir ci ay kàddu nga dégg nit ku ni la xale yi ay forces occultes li ñu waxoon mars 2021 ñoo xëy waxaat ñu ko man xaw ma force yi doon génn fa lañ jóge ak ñan lañ doon mais dama def benn jàngat mooy li am ni du tey la njëkk am xanaa tey la gën a jéggi dayo mm-hmm. ñaata yoon la ay match nawetaan di jeex ci réew mi ay nit raaxaloo ca def naka sudul noonu bakkan rot ci ay nit gaañu ci ñu sàcc alalu jàmbur comme li xew nii pourtant moment boobu kenn du wax force occulte dañ naan ay doom Sénégal ñoo def lool def enquête ñun war a jàpp jàpp leen ñun war a téetee leen force de l'ordre yi def seen liggéey tasaare leen bu làmb amee la même chose ñaata làmb ñoo fi tas violence mujj ci mais doo ci dégg force occulte wala nga dégg mercenaire wala nga dégg keneen ak keneen léegi mu doon ab manifestation politique boo xam ne xeeboon nañ ko mu dem ba jéggi dayo nga taxaw ñu ni la ay force occulte force occulte yooyu bu dee ni ay doomi réew mi bokkuñu ci réew mi fan lañ jaar ba dugg ci réew mi kon mooy wane ni kon kaaraange réew mi war nañ ko xool mhm. mooy wane ni ñun suñu frontières yi ñuy tiitaru suñu frontières yi du frontière wu dara kon nit sañ na mën a jóge dëkkam dox li muy dox dem ba ci réew mi def fi njombe lu toll noonu te ba jusqu'à présent kenn jàppagul kenn présenté ñu ko waxuma ci ay wax de mais jàpp ko présenté ñu ko ñenn kii ab force occulte la wala ñu ab nationalité étrangère la boo xam ne bitim réew la jóge ni kii moom moo ñëw salfaañi réew di Sénégal ba jusqu'à présent gisuguma photo bul ma wan wala ñu wan ma image wala ñu ne nationalité bi mbokk dëkk bii la xam ne ñoom tey boo gisee seen biir carte da nga force occulte wala ay mercenaires yu jóge feneen mais du la wax dëkk parce que boobu loolu bis boo ci duggee incident diplomatique la parce que réew ma nga ay nitam ñoo fi ñëw réew moomale dina jug tontu la pour mën a lijjanti lu mel noonu loolu nag nga gis ci ay kàddu di yëkk ba ñuy yëkkati ay video di nu wan naa nu diw ak diw ñoo nekkoon fii kii tiire fii kii tiire fii pour lool man ñàkk sago la léegi nag fi ñu toll mooy nekk ci médecin après la mort ñu ngi dem ci këru diine yi diw mi ngi jug di wax keneen ak keneen mais man fii réew mi képp ku fi jug di wax pour man ku dul président Macky Sall boo waxee pour man wax jooju kenn du ko déglu parce que président Macky Sall dénk réew mi mars deux mille vingt et un moins que ça génnoon na wax ak waa réew mi mais lan moo waral ba jamono yi moom génnul taxaw RTS wax ak sénégalais yi parce que dama gis ñi ñi ñuy yabal ñuy wax seen wax du bokk teg ci ku ci wax rek toj kaas dafa mel ne du communication bu nu organisé ab état même bu demee bay wax war nañ diggu ci lenn xam ne yow mii boo xasee ba wax mais géeg naa Serigne mbay ci am génn wax. nga gis euh, kii nu mu Abdou Karim Fofana le ministre de l'intérieur nga dem ba dégg sax ay kàddu yoo xam ne man juróom bi mu ko déggee dama ne kii di wax xol lay waxee wala mi ngi réfléchir la boo xoolee temps est passé maa ngi wax maa ngi naan Sénégal waratul nekk Sénégal ci xol mais Sénégal ci xel la war a doon nga ni léegi ñiy ñëw di leen attaqué yéen commerçant yi wala tailleur yeeg ñoomin seen yéen sénégalais yi taxaw leen jàppale force de l'ordre yi ngir ñu mën a jàkkaarloog ñoom parce que du nangu keneen jóge feneen loolu boo ko waxee mais yaa ngi néewal doole sax takk der yi sa biir kàddu parce que yaa ngi leen di wane ni ñoom dem nañ ba mënatul léegi il faut que sénégalais yi ñëw jàpp ci seen xeex pour ñoom ñu dem alors que ñoom seen faiblesse warul feeñ ñoom à chaque fois même bu leen dominer ñoom danoo war di fort parce que bu askan wi yëpp jaaxle bu doon ni sax ay nit dañoo jugee yeneen réew di ñëw cun réew ñun ñoo leen yaakaar mais boo nee ay sénégalais nañ jug jàppale ñii wala nañ jël seen kaaraange ak bopp ngir mën a jàkkaarloo ñii dal seen kaw mais loolu bu amee la Alioune Tine doon ragal est-ce que duñ dem ba egg ci mooy ay sénégalais di xeex ci seen biir te dañ ne kenn sañ sa fajal boppam la violence légitime kenn la ko yoon may mooy takku deru kaaraange gi man tey jii bu ñoon di dal sama kaw li li li gën mooy damay kalaame takk der wala ma laqatu ci ginnaaw takk der mais man tey ji mënu ma défendre sama bopp parce que kenn santu ma may défendre sama bopp parce que ku fekkoon ci man fetal da nga lay sa port d'arme ak autorisation ku fekkoon ci man ngànnaay bu la neexee nga ni ma damaa yor ngànnaay loo xam ne yoon da koy tere kon man waruma défendre sama bopp da am ñi ñuy fay ci réew mi tànn leen former leen pour ñoom ñi défendre askan wi loolu dañu ne la sécurité des biens et des personnes loolu askan wi yoroluñ ko seen bopp mais nguur moo leen ko yorol mais nguur googu bu nee bay yi yenn faiblesse yi des fois loolu dañuy tiital te xaaruñu ci kenn mu naan sénégalais yi na ngeen défendre seen bopp contre ay sénégalais waaw kon bu boobaa kan mooy àtte mu doon loo xam ne tey ji un petit régime la depuis jeudi ñu mu doon loo xam ne dund nañ ko mu doon situation bu compliqué boo xam ne loo ci mën a wax tamit day am looy desal mais ça nous permet aussi ñu wax ci avec beaucoup de lucidité parce que tamit euh, tëb wax bi pour man indil la lu bari. te wax bi ak waxee xol bi mais pour man bu ñu jëloon beaucoup de recul jëm a jàng parce que nguur pour man ki ñu fal ministre moom ëpp xam-xam man moo ma gën a xam lu renseignement yi wax moo ma gën a xam état kooku warul di wax comme man warul di def wax sa xalaat kooku wax ci loo xam la war a des mais am na ci ñoo xam ne dafa mel ne situation dafa am rek ñun ñu tëb wax tëb wax boobu la nag tey jii moo ñu jural lii ci kanam incha allah ñu dellusiwaat ci euh, son bu mm-hmm. mu doon situation boo xam ne depuis jeudi euh, dund nañ ko man ay chiffres du ma ci dugg. man boo gisee lu ku bañ ay chiffres la ay 16 rek ay ñaata blessé pour man loolu il faut ñu dem ba mbiri na tekk ñu def un bilan mais bëgguma def comme li gars yi def rek ñu ne teel rek ñu ne damm na man loolu duma ci dugg loolu tax du ay chiffres moom duma ci dugg. jërëjëf Omar euh, am na solo. Mm-hmm. li nga ubbee ci jàmmi réew mi ak ñi réew mi ñor ak ñi mu ñorul da koy gis ci problème bi nga xam ne moom la ñuy dund. dinaa la nettali tuuti benn euh, histoire boo xam ne su ma juumul xaw ma Saliou Sall laa déggoon mu di ko nettali xaw ma kan ci waxtaankat yi nee na dafa am ñaari soxna yu doon xëccoo ab liir ku nekk ni yaa moom liir bi kii ni maa ko moom kii ni sama liir la biñ demee ba ci àttekat bu maandoo maandoo maandu boo xam ne xam na jamono te xam na ni ñuy àttee mu ni léegi daal comme àtte naa leen ba sonn mën leen a déggoo ku ci nekk ne nga yaa liir bi léegi xaaral ma ñëw dem génne ji jaasi ci biir néegam ni léegi damay ñëw dagg liir bi ci digg bi ku nekk ma jox la sa cër nga dem parce que daal sonal ngeen ma keneen ki daal di fas ni daan waa loolu rek kay am jàmm am de waaye man du ma ko bàyyee àttekat bi ni ko yow moomoo liir bi juróo xale bi cest man pour man réew boo ko bëggee li ma ci bëgg a expliquer mooy président Macky Sall 2011 bi mu ñëwee di ma convaincre ak ñeneen dañu waxoon ni dama bëgg Sénégal jëlee ko ay loxo ci loxo yu taq loxo yu tilim ay loxo loxoy sàcc ay loxoy ay loxoy jox leen ma kon ñu jàpp ne kooku kon dafa bëgg a defar réew mi léegi bu ñu demaatee ba am keneen ku ni man tam damaa bëgg a defar jox jox leen ma ma defar pour man seen problème warul woon nekk ci yaa may wuutoog doo ma wuut bu demee ba nekk ci benn dossier boo xam dañ naan dañuy éliminer ay candidats bëgguñu koo éliminer lu nekk ñu teg ko fi sottiwul ba ñu teg benn dossier boo xam ne ñëpp nee nañu kat waa ji dossier bii du ci dem ñu dem ba ci biir ñu seetal ko ci tuuma lañ ko doon teg. pour man amoon na yeneen moyens yoo xam ne président mënoon na koo teg su fekkee nee na 2011 la mu ñu waxoon ni damaa bëgg Sénégal loolu bu fekkee mi ngi ci moom ba léegi waru woon a nangu senegal di àgg fii yàqal ay nit am na ñoo xam ni fii ak 6 mois da ngay leen dootuñu liggéey fañ ñu liggéey yàq nañ ko toj neen seen i bërëb am na ay kaar dem dikk benn femme maa ko seetaan lu daw yaram mu ni mu toog fi mu toog ci kees gu boobu daan ni yéen sénégalais yàq ni ngeen xam ni fii moo toog di fi liggéey fii laa am bis bi bis bu ñu ko taalee dinaa toog mi at sama njaboot du ma am lu ma leen jox léegi ñaata ay boroomi kër ñoo am problème ci loolu damay wax ni responsabilité bi yépp état bu Sénégal la maanaam ki jiite réew mi tey nii maa ko dégg mu ne am na dossier yoo xam ni su naree taal Sénégal nee na juge bi day woo ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur daal di woo procureur après ñu woo ma ñu xool nan la ñuy def su naree taal Sénégal ma teg sama conc ma jàpp ne nag Ousmane Sonko boo pesé li nga xam ne boo boo peesee li nga xam ne mooy poids am nga teg ko ci euh, euh, balance da xam ni. Bouba Ndour waxoon na ko muy kàddu gu am solo muy koo xam ne dañ koy convaincre rek ay bakkan di faatu léegi kooku nga convaincre ay bakkan di faatu tey ñu àtte ko ñu ne tëj ñeen ko deux ans ferme mu leer ni la ay bakkan dana fi desaat ndax fi xale yi tollu ci moom man pour man waru nañ waruñu woon a xaar ba Sénégal àgg fii ñu naan ña ngay waxtaaneek dem nañ ci kër kilifa diine yi xaw ma nag lu ñu fa wuti ak lu fa mën di xew mais jàpp naa ne jàmm Sénégal mën na faa jóge parce que sëñ Muntaxa bu yëgee li fi xew sëñ Babacar Si Mansour yëg li fi xew ay njaboot seeni njaboot di faatu du ñu seetaan loolu di am bu dee nag éliminer ab candidat la woon jaru ko su fekkee bañ nit ki bokk ci élection yi jaru ko su fekkee itamit mbirum viol la te yaa ma violé violé wu jaru ko pour man Omar bun Xataab ma gis ci nag ñoo xam ne ci réew mi gis naa ci ni bëgguñu réew mi gis naa ci ay kilifa yoo xam ni moo xam ci réew mi ak ci réew ñi ngi naan booy lu ngeen romb na tàkk te loolu rafetul parce que euh, wax naa ko sama groupe bi keroog man leen ndax bu ngeen génnoon fekk ñu taal sama oto wala ñu taal sama kër kenn ci yéen ñi samay soppe dina leen neex ñu ni déedéet ma kon li garaaw mooy dem leen taal lu ngeen romb bu ngeen moomee bu ngeen moomul taal leen du mbir mi parce que am na booy boo xam ne tey fa baayam doon xëyee la ñu taal léegi kañ la baayam di commencé waat liggéey ba yor kër loolu nag responsabilité bi yépp nag du ma balaamee xale yi wax dëgg yàlla ku ci nekk ak la la yëkkati mais damay wax ne état bu Sénégal waru woon a nangu situation bi di àgg fii nañu toog waxtaan Euh, président Macky Sall waxoon naa ko bii passé réew mi dañ ko ko joxoon muy lu set wecc bu koy joxewaat moo xam ku mu koy jox moo xam saa njóogu lañ koy jox wala sukkaa wala ma jigéen nañ joxewaat réew mi ci mu set wecc ñun fii lañ am génnuñu tukkiwuñu amuñu visa demuñu fen liñ ñu liggéey ci réew mi dañ ko bëgg a liggéey ànd ak saa njóogu meng mu créé dara ñu bëgg di xëy di wut si dépense di yóbbu suñu kër ñaata at liggéey liggéeyuñ xola booyi ne fii nga xam ne koo ci romb su ma saan a am samedi ak dimanche sax bu ñëwee leen daan si saa yi démb ak tey liggéeyu ma dimanche bi nangam mais kooku boo ko baaree semaine yàlla liggéeyul fu mu jëm te état bi man ci dara kon maa ngi ñaan président Sall ak ministre de l'intérieur bu Sénégal li xew ci réew mi situation bi yëpp responsabilité bi damay xam ne ñoom la engagé nañu jël seeni responsabilité li mën a taal dëkk bi nañ ko bàyyi du ragal du yambare du dara reculer du dara ma mënal la dara daal di reculer lu may wàññi mën naa la def mi ma jigéen mi dara mu leer ma mën naa ko ba àdduna yëpp xam na ko ma reculer lu may wàññi lu leen wàññi dara Omar bun Xattaab mhm. maa jigéen waaw Omar man de wax dëgg yàlla lu may njëkk a ñaan euh, président bi rek mooy que ni euh, ministre yi di génn si télé yi di wax nañ ko nañ nañu nañu wàññi tuuti parce que loolu bokk na si lii gën a tax nit ñi di am rage ci ci ci ci ci ci situation dëkk bi parce que mënuñu comprendre koo ci tàllal micro wala nga déglu ko ci téléphone la la lay wax la situation est sous contrôle parce que bu ñu demee ba ay lu ma ëpp fukki doomu aadama di ñàkk seen bakkan ci ci ci benn dañ la war a tëj wala waroo bokk comme ni ko son yi bu waxee loolu aussi Euh, lu lu doy waar la te ñoom seen kàddu yi daal man wax fa dëgg yàlla bëgg naa daal ñu ñu wàññi ko parce que benn ministre bu nga xamante ni dama koy tudd muy Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse man man lan la apporter jeunesse bi man moom laa laa mënul comprendre parce que yow mënoo ne yow dañ la jox jeunesse bi nga war leen jàppale te jàppalewu leen mais boo toogee ci télé di wax naan 17 millions de sénégalais lañ ñiy génn ay minorité lañ ba bëgg a tuutal ñi nga xamante ni nii dañoo ñàkk seen bakkan te aussi seen bakkan seen i waajur yi waxuñu loolu dañu pré dañu dañu am lu leen naqari seen biiru xol ñooñu boo leen munta dalal dëppal leen bu leen wax loo xamante ne nii day gën a yokk mer mi rawatina nag ñi nga xamante ne nii sa bokk ñoom ñoom dara xam nga loolu aussi day day day day indi yeneen problème leneen lu tax sénégalais yi gën a mer oma muy euh, internet bi ñu jël coupé ko xam nga nit ki nga xamante ne nii euh, occupation am lan la mu doon toog këram peut-être di suivre information yi nga xañ ko ko te ñëpp xam nañ ne nag droit bi nga xamante ne nii euh, nit yi am nañ ko muy droit di informer di mën a xam li xew ci dëkk bi ak li xew ci àdduna bi yëpp nga xañ ko sénégalais yi nga nga baal ma ñi nga xamante ne nii sax seen wayjur yi wala seen doom yi wala seen borom kër nekkuñu Sénégal jafe-jafe bi ñuy am fan yi pour mën a dégganteeg ñooñu rek loolu rek problème la. alal bu bokkut ak lii nii leneen li si topp muy que ni président de la république situation dëkk bu tollee fii te yow ñu seetlu ne ab picc bu deewee fii sax si Guinée bi nga woo leen baa nga tweeté di leen massawu ñu ni yow dañ laa dénk nguur gi boobu ba léegi mënuloo génn nga def benn déclaration pour wax situation dëkk bi nii mu tëddee nii man damay dem ba ne est-ce que moom wekk bi bi ñuy wax dëggantaan wekk na ko sénégalais yi parce que tamit situation bu tollee fenn président de la république bi dafa war a génn n'est-ce pas am na yenn yoo xamante ne nii su ko defee rek mooy que ne jàmm narul narul am leneen li ma seetlu comme que temps baa ngi ñuy xoj euh, comme que dem na ci xalif général euh, de mourides ñàkkul ni peut-être dinañ dellu ginnaaw ci décision bi ñu jël parce que lii lépp ñoom la ah, parce que tamit nit ki bu buñ la nee yow mi diw mii kat boo ko laalee réew mi dina tàkk nga foncé laal kooku noonu nga gis situation bi fi mu toll jot na nag à nag mu dellu ginnaaw Omar bun Xattaab. so uh, kii Sadio Gu. waa xam nga macha allah mbir mi am na solo xam nga lii yëpp li ñu ci yóbbu man jàpp naa ni bakkan la rek nit ñi di waxee seen bakkan ak seen bëgg-bëgg seen bëgg-bëgg mais mesuré lan mooy dëkk bi parce que tey dafa am wax yoo xam ni buñ demee ba état di ko wax walla ñu sës ci état di ko wax du seen cër parce que ñoom ñoo nekk fi doole ji ne buñ demee ba naan bu ma ko defee dara du xew la tax ñu naan dara du xew booba lañ yëg ni am na lu war a xew nit ki nag boo yëgee ni am na lu war a xew war ngaa fexe ba dara du xew parce que état loolu lay jariñ maanaam day yëg loo xamante ni bu lii amee lii am mu déjouer loolu ba population bi mën di tëdd di nelaw waaye bu ñu demee ba askan wi ñoom di gis ni lii day xew te yéen ñi diriger gisatu leen ko dafa mel ni sëfoor buy dawal yor volant li passager yi di gis gisu ko ci miir rek lañ jëm te buñ dalee ci biir bi musiba lay doon ci ñun ñëpp te loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am dafa mel ni rek ma leen doon yóbbu Touba guddi di dawal loolu rek lay signifier ma ne maa ngi dawal guddi di leen yóbbu Touba ba noppi nag di fërërëri fii laa waaw loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi parce que man damay jàpp ni ñi ñu fal dañ leen a jox loo xamante ni bii tey dañu am ay renseignements généroog lépp dañ ko am bu dee bànqaas yooyu doxatut kon war nañoo xoolaat bànqaas yi parce que bu fekkente ni bi ñoom indi luñu leen ay rapport yu leen di wan ne leen lii égal lii kon liggéey ba des na sooxe na parce que lii moom ñëpp yëgoon nañ ni égal lii parce que moo waraloon émission yu bari dañ ko doon def ñu bari dañuy jàpp sax ne da ngaa contre te fekk ne dafa am yooyu gis yoo xam ne dangay xam ne lii plus lii égal lii nga daa dee commencé di artu ba le dernier jour bi ñuy joxe kii bi ma seetaanee non dama njëkk a seetaan Farba Ngom mu wax bi ma seetaanee Farba Ngom mu wax ne jeudi ne kii bi dina génn bu boobaa pare nañ yaa ngi dégg waaye am na loo xam ne kenn du ko wax ci mbooloo donc am na lu mu annoncé son bi bi ma laajee fii ma ne ko Farba ngoom li mu wax ay waxi boppam la rek jàpp naa ni bu yëgoon dara du waxee nii te doon la war a demee dama jàpp ni bu yëgoon dara war warta waxee nii mais annoncé na yëf yi te yeggaguñ ci ñu xool ci dialogue bi dialogue bi man dama jàpp ni ñooñu président woo ñoo ko dimbaliwut parce que da ngay dimbali kilifa ci yenn situation yi da nga koy dimbali ñuy remercier Cheikh Bamba Dièye ci kaddu yi nga xam ni yëkkati na ko sénégalais yi dañu war a saluer kaddu yi Cheikh Bamba Dièye yëkkati ak même abbé bi abbé bi yëkkati na kaddu yoo xam ni wane ni pardon dafa am solo yaa ngi dégg même boo fekkee ne da nga jàpp ni dañ la tudd loolu yëpp dafa am solo. mais mu am yeneen kàddu yoo xam ni jib na fa ci kàddu yoo xamante ni bi warta nekk kàddu yoo xamante ni war naa jóge ci. wax ci gëmmal dóor. non gëmmal dóor. fii laa wax nga ne ma kàddu yi dara non non kàddu gëmmal dóor. Ah. Euh, dañu ko dugal ci contexte. boo xamante ni parce ah, que boo dégluwaatee. mais mais jotaay boobu gëmmal dóor amu foon kàddu. waaw may ma c'est que boo waxee nii xam nga dañu doon waxtaan waxtaanu suuf. Ah. boo ko yégalee ci kaw danga may may. ma expliquer. parce que bu fekkee ne da ngaa puus rek day nekk loo xamante ni bii waxtaanu suuf bi ñi déglu wutoon ci suuf duñu comprendre da nga may may expliquer waaw yow wax nga jomet jomet nee nga sëriñ bi ni mu ko waxee contexte bi bokkul non c'est que dama la bëgg a wax ne la hmm. man déglu naa sëriñ bi mu wax hmm. te temps yi am na ñoo xam ne ñu ngi commencé waat di ko daggaat parce que dafa expliquer ci wàllu dialogue ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni noonu la ñu war a daal ne bu ñu jàll nit day diisoo ak ay ñoñam noonu la ko expliqué daal di wax ne dugal ay baatu arab daal di wax ne am na yoo xamante bu li ñu dialogué buñ ko dialogué ba pare sens boobu lay waxee ne na gëmm dóor ci li nga xamante ni mooy dialogue bi mais jàllal coow li li ko indi mooy Ahmed moom moo ko moom moo ñëw jël gëmmal dóor boobu dugal ko moom ci beneen contexte bu bokkut ak bi nga xam ni moom la kële doon waxee maanaam moom ci contexte bi mu ko jëlee moom gëm mu dóor bi muy wax parce que moom dafa ñëw ba utiliser ne mën nañu bombarder nit ki comprendre nga ne armée waaw comprendre institution waaw foofu loolu la wax kon donc bi mu ko jëlee dugal ko foofu ci li nga xam ne mooy contexte am boobu moo tax nit ñi déggee ko ni sëriñ bi gëmmal dóor bi fële la ko waxee. Ah, mais waaw c'est-à-dire fi may waxee rek mooy. exemple dafa joxe ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa saayiruhum fil amri. waaw maanaam ngay diisoog say ñooñ. waaw ci njàngale ci hadis ci alquran. waaw amul fenn fu fi yàlla waxee gëmmal dóor moom moo ni. moom waxu dana sama benn cousin waaw moom laa ko fire waaw déggin bi déggin bi daal indi. léegi xam nga moom bi mu firee aaya yooyu yëpp. waaw indi njàngale bi yonent bi. xam nga kon amoon na porte yu mën moom waxee li yonent bi daan wax waaw mais dafa dem bi benn tekkinu frère am daan ne sama benn frère moo koy tekkee waaw gëmmal dóor kon président gëmmal dóor lan lay gëmmu dóor waaw c'est xam nga li am solo xam nga jotaay boobu gëmmal dóor amul woon balaa ñuy dugal balaa ñuy dugal sëriñ bi ne lii la wax waaw lan la doon wax gëmmal dóor waaw gëmmal dóor mooy maanaam yàgg nañoo dialogué moom ci sens boobu la waxee yàgg nañoo jalage di jël ay décision yoo xamante ni bii defuñu ko boo seetee même euh, ñoom Cheikh Bamba Dièye yooyu wax na ko ne ko décision lañ war a jël hmm. Cheikh Bamba Dièye nee na ko fi mu toll dañu parce que am na lu ñu waxoon te ba tënkoon ko hmm. dañu nekk dialogue bi dafa war a nekk dialogue de décision maanaam jël ay décision maanaam ci décision yooyu moom foofu la doon waxee gëmmal dóor comprendre nga léegi nag kële bi mu ñëwee moom moom mu ñëw jël daal li kii wax d'accord naa ci gëmmal dóor xoolal léegi nag daan na ko gëmmal dóor xoolal dóor booba la dugalaale kële ci guuta goo xamante ni gii moom nekk fa woon donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mooy mbir mi. parce que dafa am kàddu yoo xam ni ñooñu bu ñu ko di bu ko dimbali woon dëggantaan je pense que ni nañ ko jayee parce que am na ñeneen ñoo xamante ni bi waxee nañ ñeneen. ñoo xamante ni bi gën naa wax nañ sax xam nga sax dafa riime moo tax nit ñi jël ko mais am na ñeneen ñoo xamante ni bi wax nañ ko président doo baale. doo fi baale. bi nga xam kii mooy sëriñ kii bi euh, ndakaaru bi wax na wax na loolu nee na ko doo fi baale duñ la seetaa ngay baale maanaam ñooñu ñoo nekk mag ñi nga xam ni ñoo waroon a indi apaisement ci réew bi yaa ngi dégg. Mm. parce que man jàpp naa ne président bu nit ñi waxoon ak moom foofu carrément xamal ko ne ko réew mi de dañ koo kii te am na yoo xam ne warta am te li ñuy dégg nii. Mm. am na yoo xamante ni bi yow rek lañ ciy déglu. Mm-hmm. defe naa ni kon yeneeni mbir dina am yoo xamante bi du bokk ak li am. kon donc ñoom dañ leen a woon ngir ñu waxtaan ngir réew mi dal mu mel ni nag foofa la ay ferñeent tàmbalee génn yoo xamante ni bii tey guute gi Sénégal dugg foofa la dooree. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni mooy mais en tout cas dañuy delluwaat encore une fois di wax ni réew mi dafa soxla jàpp parce que dama seetaan ba seetaan ma jigéen mii ay chinois. man bu ma demoon ba naan à la une journal Chine danañ nekk euh, euh, euh, ca ca ca titre ya dama naan déedéet parce que xam nga lu tax tolluwaayu réew mi la am na dëkk yoo xam ne bii tey ba ngay am ay kii de mais Chine defuñu leen à la une seen journal ya de xam nga lu tax tàmm nañu xeex ci ñoom. mais suñu réew mi dafa am image boo xamante ne bi moom lay refléter ci ñun amuñu lu ludut jàmm ji moom lañ doon jaay moo nekkoon sunu pétrole moo nekk lépp parce que kuy daw si di investir. lan ngay investir da nga naan dëkk bu dal la dëkk bu ànd ak jàmm la mais jamono ji violence bi ngay gis ñu yàq bagage nit ñi kan mooy nekk bitim réew bëgg a ci réew mi mm-hmm. donc yenn yi mën na gën a indi ndool ci biir réew mi donc nag loolu nag doo jiite ba noppi xam lu mel nii mën na ne bi ma déggee ñu naan Mali nee nañ xaw ma seen euh, bato bi te mais wóor dañ ko bëgg a jaarale beneen dëkk parce que wóorootuñu réew mi lan lañ ci nar a per xaru tabaski ci période bi am na ñoo xamante ni keroog maa gis benn booy naan ren di nga gis ku musta sol jesner sol jesner parce que non c'est parce que dañuy song dañoo song magasin jesner rek magasin kii am na ñoo xam ne dañuy raaxaloo ci biir mais raaxaloo ci biir yooyu yëpp li koy indi mooy lan lépp mu ngi jóge ci dogal bi nga xam ne bii jël nañ ko nee nga nit ki dindi naa la ci wàllu viol nee nga nit ki ci wàllu menace de mort dindi naa la mais doone ko dindi nañ la lu ñuy indiwaatee leneen naan ko ci lii lañ indi ba loolu indi fitna gi nga xamante ni bi moom la indi ci réew yàlla na réew mi am jàmm vraiment mais en tout cas metti na trop. Euh, euh, kii euh, Omar ku ni méttiwul rek dafa fekk dal dafa dal xam nga gis nga ay xale surtout population kenn du xeex ak surtout xale yoo xam ne danoo am nu fugg. gis nga jàmm boo ko jalee boo ko amee euh, dialogue bi man dégluwuma woon sax nekkati di am na fa parce que dafa am ay yoo xam ne dañuy jël rek tuuti ay extrait dañuy jël rek tegal la tegal la tegal la yaakaar naa ne kon waxu ni nekkoon nag moom waxuñu ki nga xam ne moo di njiitum réew mi dëgg te nag nit doo ko doo nekk ak moom ba pare di ko raay raay di danga koy wax dëgg da naan ko lii moo fi ne moo fi am euh, te gis nga liñ doon wax naan liy raam ci ñag ñag bi la jëm dafa romb ñag bi ndax li tàq dafa bari euh, sooy bu da nga daan danga daan da daan tiitaroo Sénégal mm-hmm. mais da ngay tiit dama man ci dama sewaa semaine bi fii nii da ngay tiit mm-hmm. ndax da nga naan est-ce que nekkate am na xale yu mel nii mm-hmm. nekkate am na ñu mel nii am na nit ñoo xam ne am na waa danga yow da ngay tiit parce que ñaan yàlla ni jàmm moo moo war a am te jàmm moo war a am Euh, euh, président da ni nan la ñaan ci njëkk ak teraanga bu ko defee lépp mën a dal kon ñaan nan la ci njëkk ak déedéet nan la ñaan kon. nañ ko ñaan rek. waa déedéet euh, mage fi mu ne fii ñu toll nii jàmm xale yi toll nañ foo xam ne bu nu waxul jàmm rek ay day amaat te fi ne nii démb boo génnee ci réew mi da nga xam ne lépp jàmm la te jàmm moo xaj ci ci ñëpp gis nga am na ci benn grand boo xam ne ceg-ceg la. da daan daw da daan lim daan daw xëy ci ñi gaañu noonu ñëw ñëpp ay soutien de famille lan am na ci koo xam ne moom ci gën a marqué. moom laasana. kooku daf ma marqué te bokkuma ak moom dara. daf ma mar parce que su soutien de famille la woon. Mm. ñu rey ko ci nii. te loo xam ne est-ce que dina am suivi déedéet ku dee ku dee rek sa yaay moo ñàkk. te loo xam ne ngay génn Macky président Macky moo war a génn wax ak nit ñi ba tey waxul. donc daal man daal métti na métti na métti na yàlla na nu yàlla may. danañ dem ba bitim réew. ñu nan nu may daal euh, sooy bu daal nan ñaan yàlla. jàmm am. ci réew mi yàlla na fi jàmm def jàmm. voilà parce que jàmm moo gën lu ne. looloo ndax xaju fi. mais depuis deux ans mooy mooy maître kii waaw maître Missa Moussa Diop waaw. ñun ñu ngi toog fii tamit war nañ ci war nañu def enquête. waaw enquête mais ak ñi dóor. xam nga la gra li ak ñi yónnee ñu joxe pick-up bi ñi yónnee oh métti na mars deux mille vingt et un quatorze morts am nañ fi commission bi il ba tey ji enquête amul maanaam yooyu ñu bay bayal. Mhm. nëpp nëppal ko moo dem ba jur lii. bu ñu leeraloon loolu mun na am duñ egg fii. mais man fi may daaneele rek mooy euh, ji nga président xamul tax mu war a maytu ñu naan ko dóoral lii nii. Mm-hmm. ma damay nettal benn anecdote saa ngeen baal ma. Mm. mooy euh, ticket présidentiel. 23 mm. juin. Mm-hmm. boobu ñu ngi oxygène. maa doon def plateau ci antenne bi nii gars yi nekk assemblée. xam na boo boo dee liggéey ci politique bi da ngay xam député yi nekk ci banlieue beeg yooyu. Mm-hmm. mais de am na ci ñoo xam ne da boo leen doon xool ci télé bi nii dañ doon wax naan ticket bi day jàll Ablaye Wade day lii boobu gaa yi ngi ci biir mais yow dan lay woo yow en que journaliste nan la est-ce que mbedd mi yëngatuwul mbaa Pikine ñun bu ñu fa ñibbisee kenn duñ lii. Mm-hmm. ñoom ñi ngi xam bi biir assemblée. Mm-hmm. mais naka te ñoom ñoom ñi ngi xam bu président Ablaye Wade de. Hmm. mais xam bi nga koy xam yëpp yow ñi ngi lay woo ci suuf. de la laaj di la laaj. loolu mooy ñàkk dëggu. fan la lii nga xam nga ni ñoom li ñuy wax noonu gëmuñu ci dara c'est grave loolu da des fois nguur des fois président mën nga ko di xas wala nga koy critiquer mais des fois nga yërëm ko wallaay azim fois ñu ko entourage lay gars yi mooy loolu bi nga boo mm-hmm. nekkee sa 4-4 nekk un privilégié nekk ci confort yi nga boo xawul di wàccee sa bopp tuuti mun nga dem ba réalité bi. tey Omar bu ma nekkoon nga génn ci te doo ko yëg de. tey Omar boo fi nekkee loo xam boo fi nekkoon lu for loo xam ne di nga ma ñëw doo ma wax dëgg parce que da ngay bëgg da ngay bëgg sa sa. sa parce que jamono bi naan kër jamono bi naan euh, maîtriser nañ dëkk bi man mi dëkk Kër Massar doon gis réalité bi à Kër Massar. Mhm. da ngay xam ne li may gis ak li may wax ci télé bi dafa xawoon wuute. Mhm. te li ci am solo rek mooy président. Mhm. li mu koy ñaan daa am lu ñuy defalee ci askan. munoo ñàkk presque une vingtaine de personnes. da ngay def deuil national ji nga ñi dee même bu doon xeex contre nguur gi ay sénégalais la. nga def deuil national defale leen ko réew mi dajal leen mais nga génn wax loo xam ne aussi day dalal réew mi te li liñ doon tiit ñun ñëpp ñëw na mënatuñ ci dara. na mm-hmm. nañu justice ba tàyyi justice justice justice ba tàyyi mm-hmm. mais malheureusement fii la ñu yóbbu mu bañ a amati rek lay ñaan mais aussi di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. di lancer un message. Mm-hmm. ku wax lii da ngay wax la ca des. fi ñu toll ak li ñu yàqule. réew mi mosul dund lii man ba mu juddoog léegi. waa F24 nee na la 10 ak la 9 pour man du moment am. man loolu sama position la pour man moment bi. dal ñu teg lépp suuf aussi. jërëjëf Omar wallaay dëgg la Omar dëgg la de li nga wax noonu dëgg la. pour man ak nan bàyyi. bi la. saa du maman bi nag déedéet. maman bi déedéet saa nag déedéet nan bàyyi rek mu kii. nan kii non maman bi maman bi loolu luy calmer la. kon nag bu subaa kii wuñu ah, pour loolu loolu kenn woote wuñu ku nit déglu sax nga daw. waaw ma ne déglu ma. ah dara woo nan dal nan bàyyi rek du léegi nan bàyyi ba affaire déedéet nan bàyyi ba affaire yi passé dañuy wax nan mu sarax ngir yàlla kon nan bàyyi ba semaine prochaine nan bàyyi ba beneen semaine Omar waxal sarax ñu ngir yàlla maanaam maanaam xam nga lu may voilà bu baax sax maanaam fi mu toll daal pour waaw yéen ni yéen ko def ni ko defee nan ko defee nii dëkk bi léegi nun nun waaw dem na damaa li mooy def émission jërëjëf ñëw na yàcc jooy jooy jooy jooy quinze minutes soo ko c'est extraordinaire quand même xam nga saa hmm? danoo nekk ci. non non non non non non non non non saa da doon nekk situation xam nga loolu kenn musul gis. da doon nekk situation bu ah, nekk ba noppi boo nekkoon nii mais. damaa bëggoon ñu eggale. saa li ñu laa la ah. semaine passée. dafa métti parce que ah, wax sa xalaat lépp ci kii wax sa xalaat bi lay commencé. lépp mbir mi la. waaw lépp ci mbir mi la beneen angle la. ñuy ci ñuy jaale nag euh, waa kër euh, Mbaye Fall defe naa fa xale bu góor bu dëkk mu di laasana yal na ko yàlla yërëm ak képp koo xam ne rek ñàkk na bakkanam